Salut les amis de eSport TV, merci encore de la confiance renouvelée, merci de du like, merci de d'abonner, merci également du bail des commentaires gay. Un plaisir renouvelé chaque fois des partages et des informations. Mbokki Sénégal il fait mu nekk 14 régions du Sénégal à wërngal Cup, ñi ngi leen di jaajëfal ñi nekk également ci lal l'hôpital et ci kër tëdd feebar dañu mës a fàtte gay ah, wér leen ak jàmm jug dellu seen i njaboot ñi nga xam ne également dañoo dëddu àdduna suñu borom xale àjjana fi daw si te yéexee ñu ñu nekk ci kasu également erreur judiciaire yóbbu leen fa ak ay torof torof suñu borom génne leen fa ñeneen ñi également nga Sénégal ne seen i jëf leen fa bàyyi ñu fexe ba bu suñu borom tamit teg ci loxo leen gindi leen ñu daan dellu si ci société bi également gars yi actualité bi dañuy waxtaanee ci nga xam ne mooy Lamine Jarju euh, ki ñu tuddee jamono ji le Sadio Mané du Casa Sport également Lamine Jarju donc Gambien de naissance bi nga xam ne aujourd'hui moom nee na mi ngi réfléchir si diggante équipe nationale du Sénégal ak Gambie loolu la ñuy indi ay leeral mais d' abord gars yi Afrique aussi dafa am loo xam dañ koy war a waxee mooy ñi nga xam ne ñooy waa Congo fi mu ne ñoo nekk ca Soudan war a jouer ñoom nag dañ doon entraîné démb mais waa Soudan dañoo coupé courant yi ci li waa Congo wax aussi waa Comore aussi loolu lañ dund war nañ ci ay image nekk loo xam ne rafetul ah. euh, sport sport la ah. équipe boo ko mënee da nga koy dóor ci terrain bi li may wax saa su nekk et que nekk loo xam ne nañ ko gën a defar ci Afrique pendant ce aussi Neymar di togn wa Argentine gannaaw bi nga Argentine mom 33 matchs en défaite donc jël trophée bi nga xamné mo moo nekkoon euh, finalissima Neymar bobu léegi day leen togn naa est-ce que ñi dañoo gagner coupe du monde parce que mom day kaañoo wa Argentine ba léegi wa Argentine nak nee fi mu ne nii dafa commencer ëpp ci côté bi nga xam brésilien bi ngi leen di kaañoo Naby Keita waxon naa ko gay dañ koy confirmer encore que Sky Sport ak également euh, The Times ñi koy wax né actuellement ki nga xamné moy Naby Keita donc mi ngi en pour parler ak wa euh, Liverpool pour prolonger contrat am donc et que ñi ngi dégo sax ba 2024 minimum Naby Keita nek joueur qui euh, dit wa Liverpool gën a contrat pendant ce temps Calvin ngeen koy gis ni nekk pépite bi nga xam gars la Liverpool fas recruter ngir mu ñëw euh, donc doublure bu ki nga xam Trent Alexander Arnold xale bi il est très talentueux il a 18 ans club yu bari ñoko bëggoon mais finalement selon les dernières informations Liverpool dal mo gëna tenir la corde Fabio Carvalho le portugais du côté également de Fulham nga xamné Liverpool jënd nako ñom également avec le départ presque annoncé de Sadio Mané ñom nénañ actuellement donc Carvalho bu ñëwé day jouer en tant qu'attaquant attaquant d'Al, le fas jouer la pépite portugaise de Fulham nga xamné ne jaay nañ ko ñi xamné Liverpool Renato Sanchez gars waxna wax ko actuellement de plus en plus il se rapproche du Milan AC Milan AC bi nga xamné du mom kessé la tek gët ah, tek nañ ci mom benen joueur bo xamné aussi ñom ñaar on que du évoluer du côté de Lille où Sven Botman Sven Botman également le joueur défenseur de euh, Lille nga aussi il est convoité dans plusieurs clubs mais notamment Newcastle il nga aussi d'accord c'est priorité donc actuellement euh, les discussions sont avancées du côté du Milan mais comme on le dit comme mercato le gars donc solution est monogamie. Euh, donc définitivement là le joueur bi di décidé par rapport à ça aussi ki nga donc Mauro Icardi Icardi le gars il est prêt à même aller au clash avec Paris Saint-Germain pour top. et en même temps aussi on nous a aussi que nga donc Paredes nee na tamit du dem donc Paris Saint-Germain ñoom dugg nañ ci cette journée kenn bëggul dem ndax salaire yu baax fa am pendant ce temps aussi hein du côté de l'Italie la Gazzetta également RMC nee nañ ki nga xam ne l'avant-centre euh, de Sassuolo fi mu ne Paris Saint-Germain mi ngi ak Campos euh, demoon Luis Campos demoon na Italie pour Dani waxtaan ak ay agent pour recruter joueur bi nga xam il est un joueur de 23 ans profil aussi intéressé Paris Saint-Germain ki nga xam ne Antonetti Federico euh, l'entraîneur hein, de Metz hein. donc Mom actuellement nee Metz day de wu ak parce que Metz dafa la deuxième division et que Mom, euh, Linko comme objectif atteindre ko mais aussi qui devait même changer de dirigeant de donc de directeur sportif et tout par rapport au changement il qui a ki nga Costil aussi le gardien de Bordeaux euh, Bordeaux officiellement en ancienne Bordeaux mi nga xam dafa wacc également deuxième division gardien bi nga xam ne gars yi critique yu bëri teg nañu ko ci si boppam Benoît Costil donc qui va quitter les Girondins de Bordeaux keneen ki nga xam ne aussi moom dafa bëgg quitter mooy ki nga xam ne mooy Robert Lewandowski nee na aujourd'hui am na lu nekkoon ci moom loo xam ne dafa fay et que mënatu ko yee te mënu ci jàll par rapport li nga xam mooy situation ak li muy dund jamono ji ca foofu noonu ca Bayern de Munich moo tax fi mu ne nii moom séparation bi mënta a ñàkk il faut que ñu daal sëy boo gis day tas ci moom donc sëy football notamment dafay tas donc jàpp na ne sëy football yi dafa tas moom donc par rapport ak li nga xam ne moom mooy euh, jou euh, carrière am du Bayern de Munich actuellement FC Barcelone liñ koy gëna wax euh, actuellement priorité moy dem club et que Barcelone finit avec accord de principe avec Robert Lewandowski ak son entraîneur plutôt son agent Pini Zahavi. Félicitations gars au Casa Sport le Casa Sport ah hein, gars champion du Sénégal man li ci victoire au Casa Sport bi sincèrement moi que connais c'est c'est Casa Sport Sénégal la bokk gars yi nous ñu génnee Casa Sport ci Sénégal Casamance surtout gars yi non li bëgg lii di bëgg def séparation Casamance c'est le Sénégal et que tey culture bi nga xam ne am nañ ko aussi bu ñu représenter Sénégal au Casa Sport da bokk avec leurs supporters et tout mais aussi en sous Diadhiou comme je dis félicitations parce que ñoom ce sont des hommes de l'ombre yoo xam ne dañuy liggéey doo notamment un Chérif Sadio yoo xam ne ñu bëri xamuñu Sadio mais moom c'est un jeune boo des ligues pour Casa Sport et que aussi ki nga xamné moy le président du Casa Sport ils ont beaucoup fait et comme man je pense que le championnat du Sénégal il faut que ñu wax félicitation gars yi problème yi bari na lepp matagul mais beaucoup de grands joueurs comme Jules-François Bocandé, ils sont sortis du championnat du Sénégal. Des grands joueurs comme Henri Camara, hein, Yenen Jour, Sadio Mané, Nyom Nyopan, hein, et là, du Djouf Sénégal, championnat local, Navetan, il a Mais malheureusement, maintenant, gars, les Navetan, d'un y a d'un côté, comme l'Oham, les violences de Tchéberi, Navetan, championnat aussi, d'un côté, Gano Djok, que de joueurs, tu as des salaires du bar, sponsor, Ignaou, gouvernement, avec Diap, petit ministère des Sports, Diap, petit club également, Gano professionnalisé. 10 ans depuis que commencé les championnats championnat professionnel, sport beaucoup de signes, beaucoup de ont beaucoup des signes, donc à expliquer aussi Jambar, Djelko ko 2022 Djelko c'est mérité et que jeunes yu ils évoluent dans le championnat local jot aussi une chance de jouer ci équipe nationale Comment commencer équipe nationale euh, locale l'équipe équipe nationale A Boulou Junior Sambou qui fait une saison exceptionnelle à Gagnefal, 13 buts, Paul Valère Bassel, 10 buts, hein, hein. Malay Diagne, Raymond Dour, hein, Latine, Lamine Correa, deux joueurs exceptionnels au ils ont marqué ce championnat euh, donc sénégalais Bipass. Mais d'abord Lamine Diardiou Lamine Diardiou comme je l'ai dit, c'est un Gambien c'est un Gambien de naissance il joue au Casasport, mais l'Ami Diadio moom ci boppam dama koy préciser waxuma noonu na au Sénégal l'Ami pour décision il ndax joué jouer Gambie wax de jouer fi Sénégal parce que il est sollicité et également le président ah xam le Sané président Casa Sport dafa bokk également ci fédération et que c'est un jour exceptionnel Il faut jouer comme on dit le Sénégal et la Gambie c'est des pays frères maintenant l'Ami Diadio comme je dis avec le Casasport, hein donc aujourd'hui ce gosse il a un collectif fort mais surtout un jeu équilibré avec le Casasport. Sport l'Ami est un profil xam jour intéressant là hein. il est plus ça est plus ça le donne que bien entendu autre chose je pense que mon tu nous def avec Elie meneur de jeu la Lamine vitesse 1 sur 1 contre 1 il est excellent mais également qualité yi nga c'est un meneur de jeu de naissance par rapport à également capacité bi pour repiquer vers l'intérieur pour libérer le couloir également décaler dans la profondeur avec coéquipier capacité également bi pour laaj aussi de recevoir un contrôle orienté bi par rapport au jeu c'est un joueur il est pétri de talent on pourrait également wax ci li nga variété de jeu bi nga xamné jox parce qu'avec euh, Lamine Diadio on a vu que le casasport Sport idée de jeu c'était un jeu collectif fluide un jeu tourné vers l'avant un jeu aussi c'est équilibré que ce soit en attaque au milieu et en défense le à Sport on ne peut rien rien rien le refuser aujourd'hui dañuy comprendre que aussi c'est un joueur il est très intelligent Lamine Diadio il est capable de s'adapter à l'adversaire à équipe bi nan lay football donc gis parfois ci jeu day varier jom et je pense aussi que leur entraîneur Diadio aussi a fait beaucoup par rapport à ça aussi c'est un joueur bo xamné il joue de plus en plus dans l'intérieur et dans les espaces libres espace libre intérieur c'est un joué le plus beau donc moi c'est un joueur qui s'adapte donc en tout cas gars si vous voulez l'ami Diadio joxe leen avis quest ce que vous pensez de ce joueur gars ou wooy des di like wooy leen di il peut beaucoup apporter à l'équipe nationale du Sénégal aussi parce que nee na décision on attend sa décision gars yi ngeen